chers internet de Dakarnet ñu ngi leen di nuyu di am contentement ci topp bi ngeen ñuy topp tey nag ñu nar a ànd ak yéen ci li gën a fës ci euh, actualité bi ñu dooree ko ak euh, député boobu di Alioune Dembourou sëw defoon ay déclaration di wax ni pare nañu ñoom pour combattre ak képp koo xam ne nii mi ngi xeex troisième mandat wu Macky Sall dem na sax ba ni dinañ ci génne ay euh, jaasi. ak muy lu lu jéggi dajoo sax lu jéggi dayoo suñu xoolee def benn. flashback tuuti dellu si ginnaaw xool li xewoon ay Rwanda wala Côte d'Ivoire ak yooyu muy affaire ethnie xeet ak yooyu waa su ñun mosu ñu am problème boobu muy côté religion di côté ethnie donc su ñu dee ba dégg lu mel noonu lu ñuy tiital la te lu jara araftu la lu jara dakkal la léegi léegi. donc ñi nga xamante ñoo yor justice war nañ si wax mais tamit kilifa diine yi man su ma sañoon tamit ñoom muy jël si position taxaw wax si parce que ñu mel nii tey mun na indi problème wax ju mel ni mun na indi problème si saa ay saagante lañ doon wax diw saaga na xeet bi diw saaga na xeet bi léegi nag ay jaas la ñuy wax. chaque jour yàgg naa ko wax nee naa bis bu fi guerre di am guerre ethnique lay doon parce que tey boo xoolee am na ci ginnaaw pend pend ba saaga woon na fi olof nga gis nit ñi yow ñu euh, bluff def des trucs de ce genre yóbbu ko mu dem tukki ñu bàyyi après euh, affaire yi mujjewul fenn beneen aspect bi mooy ñu waxaat ni euh, député bi génn nee na nañ génne seeni seeni arme blanche moom mooy machette et autres pour lan pour mu doon luñ ko mën a nañ am troisième mandat nañ ci teg seen bakkan troisième mandat boobu ñu bëgg a teg seen bakkan man waxuma troisième mandat parce que avant ngay wax mandat da ngay wax candidature d'abord nous qui ne respecte en réalité absolument rien du tout. Parce qu'un député doit veiller à ce qu'il y ait respect de la parole donnée par ceux qui gouvernent ou administrent les affaires de l'État, plutôt que d'inciter à un non-respect de celle-ci pouvant provoquer une colère noire, une colère noire qui très souvent tente le peuple à un soulèvement. kenn ku nekk nag parti bi nga féete da koy jéem a defar mooy koñ ba nga dëkk da nga koy jéem a defar ndax réew mi toog assemblée di wax. wala toog ca pale ba di wax defarul am réew kenn ku ci nekk fa nga dëkk mën nga faa waaxu dem defar fa loo xamante ne ëllëg ñu gis ko mais ñi mboolem ñu nekk ci nguur gi gisoo kenn ku nekk gox ba mu dëkk mu defar fa dara ay wax rek lañ ñu yore. audio yi nga xam ne nii politiciens yi ñu ngi koy génne di ci xasante di ci waxsante lu ñaaw te demee ñoom ñu war a diriger suñu réew chaque fois dem ñu daan dégg politiciens yi ñoom ci seen biir di retourner waat di ci commentaire. loolu amul doomu aadama bu koy rafetlu ndax réew mi di Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te nit nag soo bëggee jiite ay nit da nga leen di wan bon exemple da nga leen di wan lu rafet ñu mën la roy ci yow mën laa ëllëg ñu mën laa jiital waaye képp koo xamante ni yaa ngi génne sa làmmiñ lu salte lu ñaaw di ko wax sa moroom yow mënoo jiite am réew ab yàqkat nga. fi ñu toll ci Sénégal tey ñu ngi ñuy jiite at ñi nekk sa position bi séntu nañ leen fu dul si lii donk am na ñoo xam ne ay royukaay lañu ay jeunes lañu ñoo ngi seen i ginnaaw donc audio yi ñuy paasante wax ju ñaaw ji ñun du loolu lu ñuy séntu si ñoom li ñuy séntu si mooy ñuy jokkalante ba fexe ba Sénégal jëm si kanam fexe ba jeunes yi nga xam ne am nañ espoir si ñu nekk si opposition bi ba ñi nekk si pouvoir bi li ñuy xaar si ñoom tamit ñu fexe ba ñun ñi nga xamante ne en tant que citoyen ñi leen élire ñu réaliser li tax ñu élire leen moo gënoon ñi nekkante waxante wax ju ñaaw. joxe yoo xam ne yoo xam ne c'est dans un cadre privé rafet doon lu ñu rafetlu daal. ñun xamatuñu ban Sénégal lañ nekk te buñ nekkee benn dëkk boo xamante ni ku ci nekk ñan nga yàlla am fi ay doom doom yi réussir am éducation bu baax mais lii ñu gis nii jëmul kër lu tax ma ni jëmul kër parce que sunu doom yi bu njëkk ba ku ciy saaga sax da ngay làqatu mais léegi ñi leen waroon tere saaga yi ñooy saaga. ñi leen waroon euh, jox ay leçon de morale ñoom joxatuñ ko seen bopp ba koy jox seeni doom kon bu boobaa ñun après dañu naan fan lañ jëm ban monde lañ war a nekk bu ëllëgee kon ku nekk jar na ngay tiit ci àdduna bi ñu nekk jamono bi franchement nag lu ñuy ñaawlu la situation la boo xam te ne dañ koy déplorer parce que tout simplement ñooñu ci boppam ñoom ñoo ne bëgg a réew bi wala si ñoom sax am na ñoo xamante ne ñoom ñooy jiite réew bi donc dafa dafa nekk loo xamante ne tey dañ koy déplorer parce que tout simplement éthique ak déontologie nanguwul loolu Sénégal dafa amatul maam référence comme bu njëkk ci li ñu xamoon ñun li ñu fekkee muy jamonoy Abdou Diouf amoon na ay référence yoo xamante ne bu ñu waxee rek ñëpp lu bu lu baax la nit ñi dañ ci topp bu dee lu bon la ñëpp nañ ko bàyyee ndoo donte sax arrangé wuñu waaye fi jamono toll nii ak euh, ci xeetu xarale yi xew tax na ñu bëri dañ ciy bëgg a jaaree pour am buzz pour ñu xam leen mën nañ ci jaaree pour bëgg a véhiculer bëgg a xas muy seen problème personnel te dëkk bi loolu xaju fi ndax dëkk bi dañu yàgg am ku mel ne maam Alaaji Malick am ku mel ne maam Serigne Touba am ku mel ne maam baay Niass am ku mel ne maam Limamou Laye am waa ñeneen ak ñeneen ba ci waa jàngu bi kon man rafetlu moo ko dara dara dara dara dara rafetlu moo ko su ma sañoon su ma sañoon euh, ñu delloo siwaat xel yi te xam ne lii di internet maa ngi ko jàppee loolu ñu ñu waxoon ca ba ñuy xale di jàng daara ñuy wax ma masxaw dëjaan mooy boroom bët boo kooku nga xam day am bëtu kanam am bëtu ginnaaw muy ci internet di téléphone lu baax mën na ko jël sànq ko ba def ko lu bon ba nit ñi gëm ne lu bon la mooy intoxi te tey da ngay gis ku génnee dara wax ne état nangam ak nangam donte état nekkul ci loolu waaye ñëpp seen xel dañuy dem ci loolu may ñaan nag ñi nga xamante ne ñi ngi koy def ñu bàyyi ko ndax loolu jëmalewul réew kanam te réew bu ñu bëggee mu jëm kanam dafay dafay doon loo xamante ne nii ñun ndaw ñi ci ñun lay tàmbalee. parce que loolu au moins nekkul exemple parce que boo demee ba nekk autorité au moins ça veut dire que tu es un repère repère nga ci génération future bii ni ñëw parce que loolu bu ñu koy def day yàq lu bëri ñoom ñu ngi def leen loo xam ne c'est-à-dire que dinay yàq ci Sénégal donc ñun nag dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem di wax ni xale yi ñu bañ a roy ci ñoom au moins parce que loolu xale yee ko waroon def ñoom ñu leen tere. léegi ñun exemple bu ñu bëgg a joxe rek mooy xale yi bañ a roy ci ñoom quoi au moins balaa ñuy jël autorité mu nekk kenn koo xam ne bon xam na xam na njëriñu communication parce que communication dafa am solo parce que baat wax bi mu am solo quoi mais doo xam fan lay lu muy tekki quoi communication lu am solo la ci dëkk quoi parce que mën na taal réew.